jigéen ñee góor ñi ñëpp bay bëre donc Ama lépp lu mu def rek ci ay tegtal lam Ama du fooyee gàllaaj Ama bi muy xale di doog a bëree la ko papaam am na gàllaaj goo xam ne du ma ko ko joxagum léegi daal di si moom fee la toogoon garab gee di ko ko wax Ada Fass ak guy gi Ada Fass dafa war a jox teel guy gi respecté ko gis nga discipline dafa baax ci biir géew mën mën nga koo mën fuuf ëpp ko doole ëpp ko gàllaaj mais boo amul discipline ci biir géew mënoo koo daan parce que tey boo xoolee loolu moo ko dal diggante moom ak Zoss mbër da ngay am discipline ci biir géew kooku laa mu nii loolu laa koy wax nee naa ko mbër da am discipline. moom mu jox cër adversaire am jox cër adversaire am ko man ba pare concentré wu moom ci li mu bëgg a def moom bañ a topp guy gi concentré wu guy gi nag attention guy gi guy gi daa doy waat guy gi daa mën a yàq bët gis ngeen ko noonu ndeysaan Ama Baldé ngi noonu la première apparition de Ama Baldé noonu di wis avant qu'il galvanise ses supporters avant qu'il galvanise ses amaa ngi noonu ndeysaan ma ngay wiis Babacar Baldé topp ko Pape Sarr topp si ginnaaw ndeysaan Ama Baldé ngi noonu ndeysaan supporters yi kontaan nañ bañ gisee seen mbër mu simmeeku am nañ confiance ndeysaan gis ngeen ko noonu ñoo ngi yóbbu o o o Ama yee Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu ndeysaan Ama ki galvanisé Mbay ndeysaan ànd ak Pape Sarr Babacar Baldé Paate Baldé Zul Baldé ñoom ñëpp ci ginnaaw sël bu ndaw bi pour gunge ko pour bu am victoire lamb sport la waaye dafa bëri culture dafa bëri cosaan ana magal ran dem na feneen waaw waaw hmm? am xam boo xamante ni nga bëgg sax doo ko mën a am. qualité image bi nga bëgg sax doo ko am quoi dafa xam. liggéey waaw maa ngi gis sama loxo si la caméra yi caméra yi. Thank you. waa Sara eh Sara eh. Sara. Eh, Sara. ba léegi noonu ndeysaan nekk beneen côté ba di wis ndeysaan xoolal ma noonu Pape Sarr le monument de Pikine ma nga yor leket ba waaye ci kanam tuuti mbokk yi diggante guy gi ak nga xamante ne moom moo di Ada Fass foofu lay xewee. diggante Liss Ndiago ak nga xamante ne moom moo di Zoss. déggul waaye maa ngi jàkkaarloo yow. das das.

jàppale boobu quoi ah. sax duñ dem fële. waaw. jéeg jéeg jéeg Deu warga. Ye. Wajar. Mana jalan? Wajar. Wajar. Hey, awak ini nak Hey, awak ini nak Main dua lagi. Oh. Ama Baldé ngi noonu sële bu ndaw baa ngi noonu ma ngay dugg ci kër Badia ndeysaan Ama Baldé ngi noonu le est confiant Ama ngi noonu ndeysaan dugg na ci biir kër Badia Ama dugg na ci kër Badia boy. boy doo ma jëlee sama bëri may gaañ mbër. mais buñ fii di ngeen dara de xoolal fii fu nga mais bi mu génnee xam nañ bi ama bi génnaat dañ ko am xam nga loolu. kon fi ne amuloo dara. non. léegi sa gaale bi mais bu génnee problème la am. soo leen jéem a yëg sa gaale bi da nga am dara. waaw. Ah, commencé ba génn ñëw di ñu dugal. waaw nag. jël essai jël jël si botte yi mooy tos.